jëlal leen ma sama vidéo bi ngeen joxal ma ko Mame Matar géey wala ngeen wol ma ko sax wol leen ma Mame Matar Gueye mu ñëw ngeen ne ko mbaa yaa ngi lay bàkk na ñëw toog jàkkaarloog man tabaar fakal ndax Mame Matar Gueye li mu nekkee ñi ñee ko ci bàyyi Mame Matar laa bëgg ngeen ne ko mbaa yaa ngi lay bàkk na si ma ma wax ko li doomam ju jigéen gi nekkee fii faatu bintu géey kooba bu mag bi nga xam ne moo def kenn deful ci Sénégal jouru Saint-Valentin la 15 février mu dem tëju jéeg góor ñi ñeenti fan bàyyam di ko wër foog ne dañ koo sàcc mu ne ko fa ma nekkoon maa fa ba sama bopp maa tànn samay ñeenti góor ñu tëj ma mu dawale ko indi ko Amérique gii indi ko fii ci Washington dénk ko ay dara xale ba tën a ay dara changé na turam Rosaline la tudd tey ngeen dégg kaa laay laay la laa tey laa leen di woon photo doomu maam Matar Gueye yu bees yi xale ba soppi na boppam nee na gëmul yàlla gëmul yonent bi du chrétien du jullit ay maam Matar Gueye eh wol leen ma ko waayi waaye kay Gaye Aboubary xam nga ni ki nga war a porter ak ñi nga war a porter plainte du kenn ku dul sa doom ju jigéen ji nga xam ne yaa ko indi ko Amérique foog ne fi lay baaxee waaye fii la gën a yàqoo tudde boppam Rosaline Rosaline la doomu Mame Matar Gueye bi tudd Fatou Bintou 17 ans yàq boppam diggu Amérique fii lay jeexee fii la ko xale yu góor yi di pamti pamte ba mu naaw ndax xale bi daa la bëgg góor xale bi daa teel yàqu baayam ànd ceeg moom faral ko ci di tëj doomu jàmbur yi di jàpp doomu jàmbur yi tëj ku wax mu porté plainte ko et Mame Matar porté plainte sa doom ji nga xam ne yàq na boppam xoola mi nii ba mu sol nee na gëmul yàlla gëmul yonante bi nee na du jullit du catholique bokk na ci secte yu mag yi ndax yow baayam ci ay secte nga bokk Mame Matar tey ngay dégg loo xam ne tey laa lay wax ba nga nekkee góor jigéen tey laa lay wax sa doom ji góor ji amoon 19 ans lan moo ko rey Mame tey la sinaab di yëngu sa doom ju góor ji nga xam ne yaa ko boole góor jigéen ñu wàllu ko feebar à l'âge de dix-neuf ans Mbaye Diop Sali Gueye xale bu ndaw innocent nga yóbbu ko inda santé boole ko góor jigéen ñi eh, damaa bëgg ku ne jël kaasu ndox toog Mame Matar Gueye du dama la seetaan léegi ci télé bi man sama yoon newu ci dama ne sama yoon newu ci jël leen góor jigéen ya nekk Sénégal yëpp ngeen tanzim leen jël leen góor jigéen yi nekk Sénégal yëpp ngeen misuwi leen wi cin sama ngañ newu ci man xeexaluma benn góor jigéen sama yoon newul ci góor jigéen kuy góor jigéen ke Sénégal ku dul góor jigéen Sénégal yéen a xam góor jigéen yéen sénégalais yi yéen a bëgg waxi góor jigéen yéen a jël góor jigéen yi teg leen ci kaw di def promouvoir góor jigéen ba léegi xale yu góor yi nekk Sénégal yëpp kenn xàmmeetul góor kenn xàmmeetul jigéen waaw booy war góor jigéen doo xam koy jàpp ndax ñëpp nuru góor jigéen léegi Sénégal jeunesse bi yëpp yàqu nañ bala nga koy xam nga dugg ci youtube bi taal sabar bu njëkkoon jigéen ñeey fecc góor ñi taxaw di leen seetaan léegi jigéen ñey taxaw di seetaan góor ñiy tëbaka supp jalañ ka baara mbay di sol ay fiisoo ka makiyaasu lépp maam maxtaar gay mii la lu jin yaaga yaa njaak yaa bëgg góor jigéen yaa judd ci góor jigéen di dund ci góor jigéen yaru ci góor jigéen jël góor jël la vie des homosexuels xamal sénégalais yi lan mooy góor jigéen ndax bu njëkkoon sénégalais ay naxa naxa lañ xamuñu luy góor jigéen ñoom dañoo foogoon ni góor jigéen mooy koo xam ne nii dangay def fii fi jigéen aka makiyaasoo ko nangam bu ñu gisaal góor jigéen sax dañuy taxaw di ko seetaan waaye maam Matar Gueye Jamra yow dara intéressé wu la dara safu la lu dul góor jigéen góor jigéen góor jigéen tey ay góor jigéen bu mag bi ay waaye sénaab déglu leen tey laa di wan maam Matar Gueye dinaa leen wan ne waa Jamra Abdoulatif Gueye Jamra ndem si yàlla si moo njëkk indi góor jigéen biir Sénégal man lu may wax day am preuve tey laa leen di dugal tey laa leen di dugal ONG yi tey laa leen di dugal lépp Abdou Latif moo njëkk a ubbi association jigéen biir Sénégal maam Matar Gueye bëgg koo succédé eh da ngay bëgg a xam lan moo rey Abdou Latif Gueye Jamra déglu leen ma yow nga toog naan dangay ngay porter plainte ay fecckatu Wally Seck yow Mame Matar Gueye dootoo ko defal du danga ne léegi laa la seetaan ma woon a génn de ndax aw ma yow affaire duma wax say wax waaye dama la seetaan léegi ñu lay introsé RFM TFM di la introsé nga ni bala ngay am jàmm tànk tëjoo Wally sekk doo am jàmm yow waroo feccikati Wally sekk yow Wally sekk nga soxla man nag ñëwuma fi pour ne damay defendre Wally Seck déedéet défendre ma Wally Seck waruma ci Wally sekk buzz ndax man bi ma bi ma bi may am buzz booba Wally amul buzz bi may am buzz booba Wally da daan yéeg ci podium papaam di way ne ko yéegal ñu naan ko wàccal sa papa la ñu soxla maa ko njëkk ci buzz sama rakk jooju Marie Yacine may sa bigé di ko ñaanal yàlla sàmm ko yàlla taxaw ko waaye Mame Matar daa siñ doomu jàmbur ji fañ Mame Matar Gueye siñ na doomu jàmbur ji ay waay waay waay waay ballaago nelaw na ay waay coon nelaw na waaye o oh, Maria Sine Maysa Bigué nelaw na bi mu dundee lii lépp ñemewuñ ko bi coon di dund lii lépp ñemewuñ ko maam Matar Gueye naa fiq bu mag bi bi coon sekk di dund bu ñu tuddaan waali da ngay taal sa oto dem ba kër coon sekk jàkkaarloog moom toog ne nga ñam sa kanam gu wàcc mel ni kawas gu ñu suub ci laalo nga ñàkk jom ñàkk gàcc góor jigéen bu mag a mag bi mooy yow maam Matar Gueye sénégalais nag ñoom dañoo naafiq du ñëpp nag ndax looy wax nay leer am na sénégalais yu baax loolu waaye am na sénégalais yu bon ba nga xam ne ñoo raw bon a tati ndax naafiq weesuwul yéen bu ngeen jógee ngeen ne Wally Seck seen nit la mooy seen artiste artiste duy peuple su Wally Seck xewlee kenn du fa xat bu ngeen stressé àdduna bépp euh, di leen seetaan Wally sekk nga xam ne baayam a ngi dee Wally Seck pourtant concert bii mu tëgg namul xaalis ndax yàlla teral na ko waaye sénégalais yi stressé gu ngeen stressé ndax ñu ngi leen di dóor ay raccoromasel ñu ngi leen di taalal ay pono lu ne ñu ngi koy def waaw lu ne mi ngi leen di dal yéen sénégalais yi ci at mi corona ñëw doggali leen ñu waxati ngeen di jiinante ay viol di taali pono Sénégal kenn xamul lu muy nuróol Wally sekk gis loolu woote le douzième bii defu ko dara pour lu dul bégal leen defu ko dara bëgg lu leen neex yéen ñëpp ngeen fàq li ngeen li ma naan sénégalais ay user lañ dañ lay utiliser ngeen jóg yéen ñëpp fàq ànd wuy ji sekk naan ko centre du peuple tey Mame Matar Gueye benn nit bu mel ni Mame Matar Gueye koo xam ne tekkiwul dara di góor jigéen bi gën a mag ci Sénégal moom Mame Matar Gueye organiser association bi ëpp góor jigéen ci àddina nga xam ne ONG yi gën a mag ak lobby yi gën a mag góor jigéen li tax muy taxaw di lim lobby góor jigéen yi góor jigéen boo bokkul ci ñoom doo xam ci ñoom dara te Mame Matar Gueye tey laay génne sa lobby yëpp ba pare dinaa génne tabaar la macha allah lépp ay fiche nit ñi di ko liir man lu may wax day am preuve nga taxaw riir ne da ngay tëj lu Wally Seck yow ma yow Mame Matar nga ni da ngay tëj lu Wally Seck ñu ne la ndax fecckatu Wally Seck yi yaa leen tëjlu nga taxaw ne yaa leen tëjlu te Wally sekk ci boppam laay tëjlu yaa ko wax fii mi ngi nii TFM RFM ba waa ji da mujj ne loolu di débat bi ngay continuer mi ngi nii yaa ngi nii ak sa kanam gu gudd sa kanam gi mel ni mburu mu fanaan ci soow ba bër set xoolal yi mi ngi nii maam Matar Gueye li ngay ñàkk jom ak sa ñaawaay nga xam ne yow booy wër góor jigéen ca seen biir kër seen xeet nga war a loqati góor jigéen yi ndax yéenay góor jigéen yu mag a mag yi ay maama taarus Basiru Jaañ Sëriñ Dakaaru nga xam ne ñoo sa yaaya bokk ay bu ma leen rusul woon maama taarus naa fami al Maram Sanu ay bu ma leen rusul woon kon di nga dégg loo xam ne ay tur laa lay limal maam Matar Gueye maam Matar Gueye maam ñetti yoon laa la woo gis nga tey ñetti yoon yi ma la woo avertissement laa lay jox du te dinaa wax de avertissement laa lay jox waaye bés bu ma génnaatee ba jàkkaarloog yow xam nga amoo jom sa joma nga ak ma joojo ndate yow jom ji sa gàcce gi sang ñay sëlëmu la li ngay ñàkk jom ñàkk gàcce ci li ma ne bu senegal di tàkk ñaara koy taal Mame Matar Gueye nga xam ne tekkiwul dara yow doo gis lu bon yow bu nit ñi xiifee doo génn bu ñu jiine bu viol bu ñu voyalee jigéen ñi doo génn yow daal yàkkamti nga xale bu jigéen bu def sili bu neen wala bu sol lu gàtt nga woo ko eh wal ma ràng waaye mu partage sama vidéo bi mu dem ci Mame Matar ràngu doomu maam Matar moo la gën a doon caga yow doo caga Fatou Bintou Gueye Rosaline mooy caga bu mag bi xoolal li mu sol mi ngi fii Washington di jàng ci école lesbienne yu mag yi Baba Aydara mi ko yar sax da të mi ngi koy waaj génne kon maam Matar Gueye yow yaa yor doomu wuyu bi yaa yor doomu band bi yaa yor doomu caga bi kon booy porte plainte demal ñëwal nga porte plainte sa doom jii faatu bintu du dangay ngay porter plainte eh yónnee ma plainte nee ma Interpol plainte ba wala nga bindal ma plainte déposer ko Sénégal ma dagg bi ñëw fekk si la naa féq bu mag bi li ma ne Sénégal buy tàkk yow mi yaa koy taal yaag borom bët yu ñuulu ñaaw yi tilim yooyu muy ñuu sa mel ni si ndax mel ni unk xaw ma Karim xurum xarax xaw ma lu mu doon ñaawaayam kooku moom du ma wax si moom sax ndax nit ñi xamuñu ko ndax bu ma waxee ci moom dama koy may bës moom dama ko xam Medina laa juddoo mu juddoo Medina moom daraan takk jabaru gaynde simb moom Karim muy góor jigéen bi njëkk nekk Medina def simb gaynde ci simb ñoom siidi ñu koy tëgg rabira tëbisa bira moom soxor ak iñaan ak iñateeg ak bon moo tax xola xol bi dagg poumon waaw moom xurum bon ak soxor ak iñaan ak yi ak ak xol bu ñuul moo tax xoola xol bi di dagg di dagg bopp mooy jeex tàkk moom xarim xurum xarax mu taxaw naan Wally Seck Amady Badiane e Karim duul tekki woo dara woyu bi nga doon band bi rappeur bu perte bi yow bala nga naan diine ngay xeexar ana rappeur a xeex diine ana rappeur a xeex diine naafiq yu mag yi li ma leen Sénégal da ngeen di gis dëgg du ngeen ko wax di jaay naafiq di jaay wii tambale ah Wally sekk daal mooy kumba am nday kumba amul nday yéen góor jigéen yi ngeen di wax bërki démb fii da ngeen di wut góor jigéen bu ngeen tëj bërki démb fii lañu ne benn sëriñ bu mag ci diggu senegal ñëpp xam ko ay mu génn ne dañ ngeen di tëddee ci biir kaso yi pourtant li tax jógu leen ah kooku dafa am ay bi moo tax jógu leen waaw sëriñ bi dafa am ay bi moo tax jógu leen ah, waaw ndax senegal boo amee ay taalibe lu la neex def ku lal tudd mbaa ku la wax dara xoola say taalu bi ricc lañ ba mel ni tege dege xale yu góor yee génn def vidéo ne xoola fii ñu sëriñ bi tëj ay góor ñu ñuy tëdde bu guddi jotee dañuy tëdde loolooy góor jigéen tëddante Wally Seck kenn bettu ko muy tëdd góor kenn gisu ko muy tëdd góor ay fecc katam kenn gisu leen ñuy tëdd góor wax da ngeen di wër góor jigéen yow Mame Matar Gueye ak Karim Xurum Xarax góor jigéen ngeen di wër pourtant nag joxoñ nañ leen fa góor jigéen maam mataar nee nañ la yaa Karim xurum xarax mi mel ni kaña mi mel ni unkoog ñuulaayam ak tilimaayam Karim xurum xaq xaw ma xurum xarax xaw ma xurum xaq li muy bon bon nga ba sa réunion yi dem bon nga ba amee cancer du xuur am ka ak amee cancer de poumon li ngay ñàkk jom solukatu jabaru gaynde bi ñu lay daan tëggal tëbi de biira mani man mbaaye maa la ne da ngay wër góor jigéen ñi li tax demoo kër sëriñ bi ñu ne moo euh, fa lañ daan tëddee xale yu góor yi gis nga sinaab bii sinaab bii mooy sama gàlle fii sama sama territoire la ku bëggut a dégg lii may wax mbaa bëggoo koo gis génnal ci sama sinaat bi ku ma message naan ma mbaaya nit day maanu mbaaya maam Matar bu ko wax nangam mbaay nangam dinaa la yàq loo xam ne xam nga man dara safuma nga message ma ma vocal la nga jël vocal bi tasaare ko ci àddina ne mbaaya wax lii ma ni ma tey dara safuma ci ndax naafiq ngeen hypocrite ngeen li ma leen ni hypocrite weesuwul ngeen jóg mànkoo yéen ñëpp ne da ngeen di xeex góor jigéen te gis lu gën a garaaw góor jigéen moo tax démb ma dugalal leen vidéo yooyu ngeen tiit naan mbaaye fooy jëlee vidéo yi ñun de xamuñu ni lii am na Sénégal aka faa bari aka faa bari quatre-vingt-quinze pour cent musulman wala quatre-vingt-quinze pour cent naa fiq dëkk boo xam ne bokkaale yàlla rek te yàlla ne bàkkaar bu nit mën a def ci àddina dinaa la ko jéggal ba mu des bokkaale yéen ngeen jël bokkaale rek ne ñun ñooy saxar ñun ñooy dëkk bi nga xam ne ñooy welcome bokkaalekat yi waaw woo bokkaale ba mu ñëw ne fii nga xaj bul dem fenn ni ngeen di bokkaale yàlla sax indo yi duñ ko def ndax indo yi xamuñu luy yàlla waaye yéen da ngeen taxaw ngeen woote ne xam ngeen yàlla gëm ngeen yàlla di mbubboo ay mag ñu baax di mbubboo ay kilifa yu baax te gëmu leen ci dara kilifa yi tey bu ñu ñëwoon kilifa yu baax yi ngeen di tuddoo naan ñoom ngeen di xaar yombal xiyaam ñu dugal leen àjjana ñu nga yor ay yat ak ay mbolde di màttu taxaw di leen xaar ku leen jege yombal xiyaam dañ la koy dóor ne la puus ma bokkaalekatu yàlla nga xërëmkat yi Sénégal mooy dëkku féticheur Sénégal ngay toog ci internet bi dëkku en tant que dëkku diine ñu dugg ci internet bi di jël ay féticheur ñu naan man féticheur laa man nangam laa kii naan man xërëmkat laa xoola ñëpp doon ay marabu traditionnel ñëpp di bokkaale yàlla ñuy jël ay nag di jël ay xar di jël ay bëy dem di ko rendi ci géej ci moo tax léegi xoola géej gi bu gisul nag bu nag mu nag buñ ko rendil ak bëy seen doom yi lay lekk moo tax lab gi bari mani déggu leen ma de géej gi laa wax su gisul nit yu mu lekk day fekk seen doom yi lekk leen parce que yéen yéen a tàmmal géej gi ay deret yéenay jël ay deret di ko tuur ci géej gi di bokkaale yàlla gëmu leen yàlla gëmu leen yonant bi yéen góor jigéen ñi sax a leen gën parce que góor jigéen ñi sax xam nañ ni yàlla muy buur yàlla moo leen sàkk nattu doo nga tege ci seen kaw ñuy ñaan yàlla teggil leen ko waaw waaye yéen da ngeen ne du ngeen ay góor jigéen ay jullit ngeen waaye yéen góor jigéen yi leen gën ñoo leen ëpp sens ñoo leen gën a jege yàlla moo tax ngeen nekk coono googu ngeen nekkee parce que en tant que dëkku jullit ngeen di jël ay xamb di jël ay jaan di da ngeen di ngi nii xool ko kanam gi mu ñu sa mel ni fromage nag bi nekk ci fromage la Vacherie ñaawaayam mamataar da nga doon bañ géey paraat ña du fi am bokkaale paraat moo am senegal ñu nga yenu ay jaan yenu ay xërëm di wër ci mbedd mi <laughs> yàlla mooy buur da di bañ gay praat li gën a bon gay praat li nga xam ne àddina bépp bépp bépp bépp bépp képp ku gëm yàlla moom ngay muslu li tax yàlla bind àjjana bind safara mooy ku ko bokkaale mu dugal la safara ku ko bokkaalewul ak loo mënti doon mu dugal la àjjana waxuma ko alxuraan a ko wax yéen da ngeen jël li gën a bon ngeen nangu ko ci seen réew muy bokkaale yàlla ñu yenu ay jaan def ay xërëm yenu ay njaq ah di tëgg ko way di tuuroo deret ji di wër nag di dem di jaamu ji seytaane di defi ay sacrifice yow Mame Matar Gueye waxoo ci dara nga taxaw naa fiq ay feccikatu Wally Seck yoo xam ne nii li ñu def defuñu ko dara dara dara dara dara dara dara lu dul ambiance ak bégalante xamu leen luy góor jigéen ak lu dul góor jigéen Sénégal góor jigéen du fa jóg Sénégal yàgg na ci góor jigéen Sénégal miin nañu góor jigéen Sénégal xam nañu góor jigéen Sénégal góor jigéen la ñuy wër. dama ne la Sénégal góor jigéen la ñuy wër Sénégal bañ nañ ko ba ku ñuy jiin góor jigéen sax ñëpp dañuy daw bàbbeeku dem ci yow. sama sina baa ngi nii. trois cent cinquante mille views laay am quatre cent cinquante mille views te pourtant sénégalais yëpp boo nee Pambaay ñu ne góor jigéen waaye xoola deux cent cinquante mille yëpp sénégalais yi ñoo may seetaan. boo duggee youtube nga tàppe Pape Mbaye sénégalais yay seetaan loo def ci turu góor jigéen bañ nañ ko ba ku bëgg am bës sax da ngay bind góor jigéen sénégalais yi ñoo bëgg affaire góor jigéen góor jigéen na leen di dundal seen dëkk mooy dëkk góor jigéen booy wër dëkk bi gën a mag ci àddina te bari ay góor jigéen mooy biir Sénégal naafiq yu mel ni Mame Matar Gueye na nga xam ne ñoo njëkk ubbi association góor jigéen ci àddina ñooy taxaw naan dañuy xeex góor jigéen yi taxaw naan dañuy tëj ay fecckatu Wally Seck Amady Badiane ku koy jiin góor jigéen Ameth Thiou ku koy jiin góor jigéen soxlawu leen ñooñu Wally Seck ngeen soxla Wally Seck ngeen soxla Wally ngeen soxla ndax da ngeen iñaan te bon gis ngeen ni yàlla def Wally sekki del ko dugal ko ci xolu nit ñi ñëpp bëgg ko sénégalais sénégalais bëggul ko avancé sénégalais bëggul ko dem ci kanam senegale bëggul koo xam ne rek ñëpp dañ ne wiiw wiiw kii lañu àndal gis ngeen ni population bépp jox Wally Seck bopp xale yëpp jox Wally Seck bopp ngeen jóg nag ne dangeen koy faagaagal di ko jiin góor jigéen sonal xale bi wét nii ngeen defoon nongoloo nii ngeen defoon nongoloo sonal ko wét mu commencé di way ngeen gis ni ñëpp nit ñi bëgg nañ ko ngeen naan ko toxkatu yàmbaa bee naan sàngara bi mu di ko naqarlu di ko mititlu ba mu rongé ko mu dem hôpital ñu ne ko dangaa amee cancer ba mu tëdd hôpital daal di dee loolu ngeen bëgg a def Wally Seck waaye Wally Seck man suma ma doon yow xam nga nooy def comme que yàlla teral na la sénégalais yi da nga leen di def ni ma leen def <laughs> ala naa kira oh billaay maria sin may sa eh, jigéen man mi maay gar mi maay jàmbaar Wally Seck sénégalais yi da nga leen war a def ni ma leen def teg leen fi ni yekk bu naqari ñëw ànd ak gambien yi ndax gambien yi ñooy xeet wi nga xam ne ñoom c'est artiste sénégalais bu siiw te am teraanga rek limal ku sa xel xalaat ka ca gën a siiw ba ci ka ca gën a egg suuf teraanga goo mënti am gambien yi la ko jox sénégalais yi duñ la jox dara duñ la may duñ la sarax gambien yi ñoo lay jàppale gambien yi ñoo lay bëgg gambien yi ñoo lay soutenir eh dama ne artiste bu siiw biir Sénégal say mbokk sénégalais joxuñu la ko ndax dañ lay ñee dañ lay iñaane Gàmbi ngay dem Gàmbi jël lañu am lépp jox la ko ci seen baax ci seen yaatuwaay su ma doon yow Wally Seck dangay ngay génne nationalité sénégalais xotti ko dem ci Gambien ndax ñoom ñoo la gën a bëgg ñoo sincère ak yow Gambien duñ la xas duñ la waxal lu ñaaw Gambien yi duñ la xas Maria Sine Maysa Bigué mosoo dégg dara lu ñaaw loo xam ne ci làmminu Gambien la jóge saa boo déggee góor jigéen mbaa wax ju ñaaw rek ci làmminu Sénégalais la jóge te pourtant nag ak nga leen mën a sagal foo toll yëkkati seen drapeau bi naan Sénégal lay tiitaroo Sénégal lay tiitaroo waaye xoola ñu ngi gor sa tànk yi ñoom it ñu doon ay naafiq mënoon a jug taxaw jàkkaarloog maam Matar Gueye ne leen waali sañu waali la bu ko kenn laal waaye ñoom ñëpp ne tekk ñu yekk Wally Seck lu mel ni talaatay ndeer jël ñaari feccam katam yi ne dañ leen di teg six mois ndax lan nee nañ ay góor jigéen lañ dama ne Sénégal suñu defoon benn euh, building boo xam ne waxuma la biir Sénégal biti Sénégal def ko Mauritanie wala Mali ne fii ku fi ñëw nekk góor jigéen da am xaalis sénégalais yee fay fay buuxante dama ne eh biram jigéen dama ne sénégalais bés bu ñu newoon bureau góor jigéen yaa ngi nii suñu ne woon bureau góor jigéen yaa ngi nii képp ku nekk góor jigéen di nga am xaalis fii la ñuy inscrire pour nekk góor jigéen bureau bii ak fii la ñuy inscrire pour nekk formation xola sénégalais yi fay ëpp ndax ñoom ñoo bëgg yëfi góor jigéen ñoom ñoo bëgg mbiri góor jigéen ñoom ñooy waxtaane góor jigéen yi ñoom ñooy débat góor jigéen yi bu ñu ñuy wut di yoon boo xam ne pour yoonu tekki la ak lekk na avancement ah jëmale réew mi kanam ak loo xam ne pour développement la ñoom ñu ngay war ku ñu jiin góor jigéen di wër ku ñu tuumaal góor jigéen di wër ay loi bu ñu war a voté pour góor jigéen yi far yàlla nag maki eh, Macky maa la bëgg ay Macky yal na la yàlla may troisième mandat Macky yaa baax Macky yaa riis góoru Marème fay Sall Macky yaa riis baayu Amadou Sall Macky yaa am maanaa yaa baax ci sénégalais yi mandat terroriste loi terroriste la leen votel bërki démb Abdou Karim xurum xaq yaa ci njëkk a ñam dootoo ko defati Abdou Karim xurum xaq yaa njëkk ñam ci loi bi yow lañ ci njëkk a riic ñi nga àndal nga toog noonu di fen di sos li nga xam ne fen rek ngay def fen nga ba mel ni saxu duus ak sa ndawaay ak sa ñuulaay ngay ñuul sa mel ni ku dëkk Soudan say bëti suulu nga naan dañ ma doo commissaire bee ma doo xoola Macky boolewul dara ak wax da ngeen di régler rek Macky tegu ci temps régler wu leen mu riit leen ba ngeen mel ni tiga dege troisième mandat par la force Macky Sall da koy am parce que tel pays tel président tel population tel président ni ngeen mel rek la leen yàlla boole njiit mu mel noonu te bu fi Macky Sall la jógee maa ngi dem ba Guinée équatoriale jëli Yaya Jammeh Gambie yooyu mérito wuñu Yaya Jammeh de parce que Gambie yi xeet yu baax lañu borom xol yu rafet lañu yàllaa leen nattoo woon Yaya Jammeh rek waaye mérito wuñ ko ñi mérito Yaya Jammeh mooy Sénégal yaaya Jammeh moo war a ñëw Sénégal riit leen ba ngeen mel ni tigadege riij leen a riija riija yaayaa jàmbe moo war a ñëw Sénégal dëbb leen ba ngeen mel ni sunguf xoola du dem sax ca yaayaa jàmbe Kim Jong Yung Nord Corée président bu dof boobu moom laay dem jëli ko ñëw ne ko bu Macky sàll wàccee kaay nga remplacé ko ndax yéen président bu leen di torturer moom ngeen mérito parce que ci yooyu ngeen di dox ñàkk ngeen yërmande fonk leen doomu aadama toroxal doomu aadama ngeen di def xoola démb vidéo bi ma dugal kii téye xale bu ndaw bi di ko suur muy yuuxu naan ko neel dëmm nga xale bi di yuuxu ñu jël ñu jël ku jigéen ku boot doomam di ko foqati di ko këpp saafara télé yi di ko génne maam Matar Gueye naafiq bu mag bi doo ci wax maam Matar Gueye seytaane bu mag bi doo ci wax maam Matar Gueye féministe bu mag bi doo ci wax maam Matar Gueye góor jigéen bu mag bi doo ci wax maam Matar Gueye yow mi nga xam ne yaa njëkk yaa njëkk ubbi jamra 1983 ubbi Enda santé fi nga xam ne fa góor jigéen ñi njëkk a njëkk njëkk njëkk a siiwee Enda pôle colonique bu Médina ku ne xam ne Enda santé Jamra ñi ñoo ko njëkk a ubbi Mame Matar doo wax ci ci xale yi ñuy torturé Mame Matar doo wax ci sa foo foo ustaas yeeg sëriñ yi nga xam ne ñu ngi jël xale yi taalibe yi ñuy wër di yalwaan tilim salté ñii di nekk ay bandi ñii di nekk ay agresseur ñii di këf ay posé ñu dóor leen ba ñuy bëgg dee ñii di fanaan ci mbedd yi Mame Matar Gueye doo ci wax Mame Matar Gueye bu ñu jiinee jigéen bu ñu bu ñu ji bu ñu violé jigéen Mame Matar Gueye doo génn Mame Matar Gueye bu population bi xiifee Mame Matar Gueye doo génn Mame Matar Gueye bu ñuy rey xale yi Mame Matar Gueye doo génn Mame Matar Gueye bu immigration clandestin xale yi dee Mame Matar Gueye doo génn Mame Matar Gueye bu ñu rendi jigéen Mame Matar doo génn Mame sa ñaawaay ak sa tilimaay ak sa xasawaay ak sa kanam gu gudd gii di mel ni mango foroxal maam Matar ngay mel ni lavaskiir yi maam Matar bu population bi jaaxlee mbënd mi wuuri ñi ñiy mars ñi daw di dee Matar Gueye kañ nga mën a génn yow maam Matar góor jigéen bu mag bi boroom doomu caga bi Fatou bintu géy kooba bu mag bi lesbienne bu mag bi ci diggu Washington kañ nga mën a génn suñ ñee ràngu mi ngay suwaare ci ngay génn suñ ñee waali sekk ngay suwaare ci ngay génn toog di seetaan soirée bi di xaar lu négatif Wally sekk concert quatre heures de temps jëm cinq de temps lépp di lu baax benn fecc boobu nga xam ne Wally Seck sax newu fa yëgu ko tëggkatu sabar bi moo ne Amady Badiane yaag ametcu fàttaliku leen jamono yi ngeen di feccal Papa Thione boobu la Amady di soru suke ak siriki ñu ko daan feccal nongoloo booba Wally sax newu fi ñu fecc fecc boobu seen tuñi laalante wuñu sax nii rek lañ def nga jël ko kole ko di ko zoom di ko ralentir dem porter plainte ne ñii dañ doon fóonante ay góor jigéen lañ te pourtant nag ay mbër mbër bërekat waaw yu mag yu ponkal ay mbëri bërekat ponkal Mame Matar ay mbër yoo xam ne bërekat lañu ponkal ñépp xam leen ñaari góor fóonante nañ fii ci diggu arène bi eh ay jox leen ma vidéo bi waaye yónnee leen ma photo bi waaye ma dugal ko sama sinaat mbër yi ñoo fi joxante gémmin nii parce que gàllaaj lañ doon sexalante te gàllaaj bi loxo du ko laal ñu joxante gémmin nii àddina bépp di ko waxtaane génnoo parce que mbër yi dañoo am ku leen di dóoral te mbër yi dañuy dóore waaye Wally Seck amul ku ko dóoral Wally Seck jirim la amul ku ko dóoral amul ku ko xeexal te population bi mu nekkal population bu hypocrite lañ ñu kenn seen intérêt rek la ñuy topp moo tax ku jóg ne waali ku jóg ne waali nar ngeen coow doomu jàmbur ji ba rey ko sénégalais bëggul ko dem ci kanam sénégalais bëggul koo xam ne rek ñëpp dañ ne wiw wiw kii lañu àndal gis ngeen ni population bépp jox waali sekk bopp xale yëpp jox waali sekk bopp ngeen jóg nag ne dangeen koy faagaagal di ko jiin góor jigéen sonal xale bi wét nii ngeen defoon nongoloo nii ngeen defoon nongoloo sonal ko wét mu commencé di way ngeen gis ni ñëpp nit ñi bëgg nañ ko ngeen naan ko tuxkatu yàmbaa bee naan katu sàngar bi mu di ko naqarlu di ko mititlu ba mu rongé ko mu dem hôpital ñu ne ko danga amee cancer ba mu tëdd hôpital daal di dee loolu ngeen bëgg a def Wally Seck waaye Wally Seck man su ma doon yow xam nga nooy def comme que yàlla teral na la sénégalais yi da nga leen di def ni ma leen def <laughs> ala lay maria sin may sa bigee eh sangoone biram jigéen man mii maay garmi mi maay jàmbaar Wally Seck sénégalais yi danga leen war a def ni ma leen def teg leen fi ni yekk bu naqari ñëw ànd ak gambien yi ndax gambien yi ñooy xeet wi nga xam ne ñoom c'est artiste sénégalais bu siiw te am teraanga rek li man ku sa xel xalaat ka ca gën a siiw ba ci ka gën a egg suuf teraanga goo mënti am gambien ya la ko jox sénégalais duñ la jox dara duñ la may duñ la sarax gambien yi ñoo lay jàppale gambien yi ñoo lay bëgg gambien yi ñoo lay soutenir eh dama ne artiste bu siiw biir Sénégal say mbokk sénégalais joxuñu la ko ndax dañ lay ñee dañ lay iñaane gambi ngay dem gambien jël lañu am lépp jox la ko ci seen baax ci seen yaatuwaay su ma doon yow Wally Seck da ngay génn nationalité sénégalais xotti ko dem ci gambien ndax ñoom ñoo la gën a bëgg ñoo sincère ak yow gambien duñ la xas la waxal lu ñaaw gambien yi duñ la xas Maria Sine may sa bige mësoo dégg dara lu ñaaw loo xam ne ci làmminu gambien la jóge saa boo déggee góor jigéen mbaa wax ju ñaaw rek ci làmminu sénégalais la jóge te pourtant nag ak nga leen mën a sagal foo toll yëkkati seen drapeau bi naan Sénégal lay tiitaroo Sénégal lay tiitaroo waaye xoola ñu ngi gor sa tànk yi ñoom it ñu doon ay naafiq mënoon a jug taxaw jàkkaarloog Mame Matar Gueye ne leen waali sañu waali la bu ko kenn laal waaye ñoom ñëpp ne tekk ñu yekk Wally Seck lu mel ni talaatay ndeer jël ñaari feccam katam yi ne dañ leen di teg six mois ndax lan nee nañ ay góor jigéen lañ dama ne Sénégal suñu defoon benn euh, building boo xam ne waxuma la biir Sénégal biti Sénégal def ko Mauritanie wala Mali ne fii ku fi ñëw nekk góor jigéen da ngay am xaalis sénégalais yee fay fay buuxante dama ne eh, biram jigéen dama ne sénégalais bés bu ñu newoon bureau góor jigéen yaa ngi nii suñu ne woon bureau góor jigéen yaa ngi nii képp ku nekk góor jigéen di nga am xaalis fii la ñuy inscrire pour nekk góor jigéen bureau bii ak fii la ñuy inscrire pour nekk formation xola sénégalais yi fay ëpp ndax ñoom ñoo bëgg yëfi góor jigéen ñoom ñoo bëgg mbiri góor jigéen ñoom ñooy waxtaane góor jigéen yi ñoom ñooy débat góor jigéen yi bu ñu ñiy wut yoon boo xam ne pour yoonu tekki la ak lekk naan avancement ah jëmale réew mi kanam ak loo xam ne pour développement la ñoom ñu ngay wër ku ñu jiin góor jigéen di wër ku ñu tuumaal góor jigéen di wër ay loi bu ñu war a voté pour góor jigéen yi far yàlla nag eh Macky Sall maa la bëgg ay Macky yal na la yàlla may troisième mandat